def na ma góor yàlla su duryee doomu ma lu ma joxoon yow nga jox ma macha allah sant jox ma ndey jumat nay baay mu mat bàyyi man de gërëm nal la ku baax du ñàkk lu mu bëgg am ko nax la muy def ca xol ba alhamdulillah mu nekk woy boo xamante ne ni fan yi moom ngeen doon dégg si euh, série boobu di Golden mu ciy daw tey nag ki nga xam ni moom moo woy woy bi ki làqu ci ginnaaw son bi moom lañu dalal euh, muy bay Mass bay Mass nuyu naa la. maa ngi leen di fay di jaajëfal waa Dakaractu ci invitation bi di la nuyu yow tamit mi nga xam ne yaa invité ci sa émission di jaajëfal ñi bëgg Baye Mass. tey jii nii ñi lay seetaan bëgg xam kan mooy bay Mass. Baye Mass nag euh, doomu Caaroy géej la Caaroy sur fa la juddoo fa la màggee fa la yaroo mu nekk xale bu bëgg musique yaakaar naa doon xale tamit bu ko mën am ñu ko jàppale depuis bi mu bi mu duggee ci musique donte yàggu ci ba tey mu yegg si fi mu yegg si. gis nañ ñuy way euh, dafa nekk loo xamante ne ni tey jii ay jeunes talent ñu ngi siy évoluer certes mais est-ce que yomb na. musique dafa nekk loo xam ne début bi dafay metti boo demee tamit ba li nga ciy bëgg nga am ko dafay metti ci beneen côté donc nekkul lu yomb. waaye bu la yàlla dimbalee am ay nit yoo xam ne ñoo la mag euh, ci ci benn différence d'âge bu baree baree bari di la jàppale nekk sa ginnaaw ba pare tuutiwuñ ñu nekk ñu ñu ñu ñu mag euh, nekk ñoo xam ne ñu ñu ràññee lañ donc loolu sant yàlla la yaakaar naa yow di nga am benn diminution par rapport ak ñeneen ñi ci métit bi. depuis kañ nga commencé nga tàmbali ci musique. waaw Baye Mass nag mun naa ne dafa juddu rek way Baye Mass depuis depuis xale mu ngi way waaye nag bi mu duggee ci carrière musicale bu bu bu bu normal euh, def na ak léegi trois ans. lan moo la poussé à que nga bëgg a way. nekk xale mooy lu ma la wax rek nekk ci kër goo xam ne kër famille la nekk ak yaay mu yéex a am doom bu jigéen muy sama rakk Faatu ma koy nuyu de passage euh, ma koy jàppale ci liggéey bi muy gën a nekk xale yaakaar naa <laughs> dañ ma daan tooñee sax euh, sa doom bu jigéen bi sama yaay dañ ko daan tooñee loolu. ndax daan ko jàppale ci liggéey bi mu nekk koo xam ne tamit dafay way ci côté yaayam tamit ñoom dañuy way séeréer yi bari na ay way yoo xam ne boo koy dégg ci làmb ji euh, ñoom ñoo ko ñoo ko fent ma koy ma koy su ma koy jàppale ci liggéey bi muy way ma koy aaw donc ñuy wayandoo dem ba way nekk ci man ma ma bëgg ko foofu la amur bi foofu la foofu la tàmbalee. bu ñu la déggee daanaka deret moo la dugal ci waay. léegi ñu reveniraat un peu ci sa carrière. say début naka la demee. début yi métti na parce que dama dama débuté ak benn benn team benn group donte du du man maa sollicité team boobu noonu mais group la ñu woon boo xam ne dañ ma invité ma def ak ñoom benn son mu mu siiw ci ci localité bi ma nekkoon foofu noonu muy Caaroy après par la suite may ànd ak ñoom di def ay sound ñu def 2 à 3 si je ne me trompe pas mu doon ay sound yu waa Caaroy bëgg. ñu teg benn concert après euh, ba ba am ki nga xam ne mooy sama sama sama manager ku njëkk ki woo ma bi ma wooyee nag euh, ñu waxtaan ci loolu noonu ci la ma proposé pourquoi pas ay cover mu nekk nag un frère aussi mu nekk koo xam ne c'est un frère pourquoi pas ñu def ay cover ci lañ commencé cover yi ba ba après cover ci lañ def suñu yëfu bopp ba ñeneen ñëpp ñëw. néegu rap ci nga nekk di évoluer naka la sa duggin si foofu noonu demee. waaw ak label boo mënti gis ah, ci musique d'abord dañuy fil artiste bi mooy dañuy bëgg li artiste bi di def ba pare. label ak ak euh, maanaam du lien du lien parental moo la ciy dugal il faut d'abord yow artiste bi am lu nekk ci yow ba pare ay potentiel label bi door la accepter aussi tamit comme lu ma la wax sànq mooy nga am link ak ñoom parce que musique link la donc par par par par des link ak yaakaar naa potentiel ñu fil lu may def ci laa dugg néegu rap deful sax deux mois ak léegi sama première première son bi ma def néegu rap yaakaar naa mooy sant yàlla ak euh, li ci li ci topp nii nii yëpp. voilà bi nga wax léegi ci la ñuy dellu si muy sant yàlla mm. parce que su ma jumul bokk na si son yi nga xamante ni ñoom ñoo la moo la gën a lancé tey mm. jii nii sant yàlla boobu noonu son bi yow lan lay wax réellement. waa sant yàlla mooy mooy yaakaar naa mooy mooy li ñëpp xamaa euh, jaam bi moom bu amee dafa war a sant bu ñàkkee dafa war a sant euh, sant yàlla man bi ma koy bind dama am dama am lu ma metti ma jël ko jooy ko ci feuille bi ma ko jooyee ci feuille jël bit bi jooy ko ci loolooy sant yàlla donc dama am lu ma metti di sant sama borom am na ñoo xam ne nag ñoom dañuy dañuy dañuy bëgg tax ñuy sant seen borom te yaakaar naa looloo tax mu mu mu dugg yenn nit yi. léegi yow lan moo la metti woon ba tax nga jël bic ak feuille di sant yàlla. waa comme nit ku nekk ah comme nit ku nekk si début émission bi maa ngi lay wax ni man ci ci famille ci ci kër famille laa laa màggee te ku ne kër famille wax wax lu ne dina mu ngi ci biir may nuyu sama sama. ñi nga xam ne ñoo ne ci ci sama kër ndax ñu ma jàppale lañ kër gi ma nekk sama ñoom maam maam faatu Dia samay ñoom papa samay ndijaay ñoom ñëpp ñu ma jàppale lañ ñu ma ñaanal lañ mais kër famille dafa xat te ke nga nekk ak sa yaay des fois mu soxla dara nga nekk ak sa papa des fois mu soxla dara yooyu noonu boo dee yaakaar naa koo xam ne xaw nga am tuuti jom rek dangay am lu la metti nga mën a nga bëgg fecc yenn yi doo ko mun a fecc donc yooyu noonu la yooyu noonu la rek mooy problème yu ku nekk di am looloo ñu tax a bind sant yàlla ku koy déglu dëgg dafay toucher sa xol parce que man mën naa ne sax son bi dafa am benn dimension spirituelle. Mm-hmm. est-ce que mun nga ñu expliquer réellement. paroles yi tekkil ñu ko. lu jóge ci xol ci xol rek la mën a dem man bi may bind sant yàlla maa ngi maa ngi maa ngi feneen moo tax boo ko bindee ku ko déglu c'est c'est c'est vraiment normal moom mu nekk feneen aussi mooy lu may wax ci biir sound bi def na ma góor yàlla donc juddu nekk góor. doomu yaayam mu doon koo xam ne ku ku yaayam bëgg la jàppale ma lu tax ma ne yàlla jàppale na ma ci yaakaar naa sound bi dafa prédire li nga xam ne moo am après son bi parce que juste bi son bi génnee lu may lu may nekk nekk xale nekk na son bu ñu ku nekk bëgg son bi yegg fu ne son bi yóbbu ma fu ne toogloo ma ak ku ne donc son bi juste dafa prédire li nga xam ne moo am après bi bi génnee donc sant yàlla. bu ñu bëggoon xam naka lañu def boo ñu introduire ko ci série boobu nga xam ne mooy Golden parce que daanaka ñu bëri foogoon nañ ni ni sax Khalil moom ci boppam moo ko way. mais c'est vraiment normal parce que Khalil dafa nekk artiste boo xam ne dafa nekk ci biir série bi aussi ñu xaw a am ñu may faral di dégg ñu naan ma dañu am dañu am touche man nag moom dañu xaw a nduroo voix ma koy dégg lu bari xaw ma nag donc c'est c'est vraiment normal bu ñu xamul ki nga xam ne moo way sound bi ñu ne moom la. te aussi sound bi daf doon faral di jàll ci ay passage am moom looloo tax mais néegu rab euh, sant yàlla dañ ko defoon beneen version pour màggal bi mu génn juste avant màggal bi ay ay 4 jours avant après après loolu noonu comme néegu rab ñooy ñoo gérer musique golden ñu ne pourquoi pas ñu changer sound bi euh, def ko def ko mu mu dugg ci biir film bi aussi dafa nekk sound boo xam ne xëy na waa golden dañ koy fiil parce que tamit euh, loo loo am am ak ay lien ak ak waa Golden bu sound bi baaxul wala boog bu ñu ko fiilul duñ ko dugal ci seen ci seen film mu nekk sound bu ñu fiil après man par la suite ma jël ko modifier ko en vingt quatre heures après ci lañ ko ci lañ ko prise dugal ko ci. son bi lan lan yan retombées la am. dafa ma yokk ci ci côté yëpp tax na nit ñi gën ma xam tax na ma am ay ay link ak yenn nit yi nekk ci kaw tax na tamit ma gën a wane li nga xam ne moom moo nekk ci man. te aussi di di wax que que di di di profiter di wax que gars yi nañ xaar parce que des fois da ngay dégg kenn ku la ne bii moom xam naa mënatoo def sound bu ko daax dañuy dañuy wax mais sant yàlla boog Baye Mass bu dee ay potentiel am 1000 la yaakaar naa sant yàlla yeggul sax 0,50. su ma lay déglu j'ai l'impression que benn jaamaan moom mooy way et tout mën nga ñu wax yow ban style musical ngay gën a faral di utiliser. je bien jaamaan maa koy ma koy jaajëfal bu baax parce que dama koy déglu. mais mais bokkul fi muy li ñuy li ñuy way bokkul des fois nag ma def euh, benn style musical bu xaw a nduroo ak moom ni muy wayee mais Baye Mass boo xoolee même ci ay covam boo retourné tuuti dafa def dafa def différentes musique dugg na xaw na def ay cover yu def zouk yi acoustique yi yi afro yi ak leneen ak leneen pour wane juste diversité aussi wane wane wane euh, lu lu lu bari lu mu war a mën a def loolu la yaakaar naa bokkul bokkul ça n'a rien à ak ni jaamaan di wéyee wala. yan relation nga am ak ñi nga xam ni ñoo la précédé si milieu musical bi. relation yu solide pour certains muy ku ci mel ni Dip Doundou gis bi ma defee cover mu mu mu rafetlu ko invité ma ci show ku si mel ni Pape Diouf daje naa ak moom ñu waxtaan ak leneen ak leneen ak ak ñu ñu bari ku ci mel ni Sidi Diop dem naa soirée Five. xam nga mu mu mu accueillir ma ma way mu mu mu ñaanal ma ak leneen ak leneen donc bari na ay relations yu solides pour certains pour ñeneen ñi nag juste da nga leen di dégg par par par par les réseaux sociaux et tout. lan mooy sa ambition ci milieu musical. ku nekk ci musique moom da ngay ñaan yàlla jiitu ci mais tamit ci kaw nga mën li ngay def Baye Mass moom ci boppam moom xam na ni mën na nekk ci kanam te incha allahu rabbi foofu la jëm ci kanam la jëm ñi ko ñi ko wër tamit yaakaar naa xam nañ ne mën na nekk ci kanam. moo tax ñu koy jàppale moo tax tamit ñu nekk ci ci ginnaam di ko di ko aider donc baamas euh, fi mu teg bëtam ci musique nekkul sax dimension euh, national mais mu ngi mu ngi mu ngi xalaat dimension internationale yegg fii fii artistes yu mag a mag yi yegg nekk ñi nga xam ne ñoom la ñuy dégg fépp ci ci àdduna ñu ko fay dégg te incha allah dina am. lan nga ñu dencal. nañ xaar sound yu gën a yéeme sound bi ci décembre bi euh, ñu ngi ñu ngi waajal benn vidéo ci décembre bi ak ay show. mais nag mënuñu ñoo wax datu date date exacte yu show yi mais xam naa bu bu ñëw rek incha allah dinañ ko dinañ ko wax. yaa ngi jàng en même temps yaa ngi koy booleeg musique gis nañ ni jàng dafa nekk loo xamante ni dafa fiir mm. de même que musique muy ñaar yëpp bu si nekk dafa laaj concentration naka ngay def rek pour mën ci génn. Baye Mass bu nekkee école boo ko fa fekkee di nga xam ne kii élève la mënoo gis dara artiste ci moom maintenant bu génnee école ba ba ba pare ci li mu war a def ci école bi yëpp. foofu boo ko gisee di nga xam ne kii nii artiste la donc lépp organisation la aussi aussi ñi nga xam ne ñoo ma ñoo ma ñoo ma ñoom ñoo ma yor ñoo nekk sama ginnaaw xam nañ bu baax lii moo jot instant bi moom ngay def lii moo jot instant bi moom ngay def donc même bu ma bëggoon suivre musique di di négliger jàng bi man mënuma ko parce que am na ay nit yoo xam ne ils son potentiels franchement nekk bu jàng jotee dañ may forcer ba ma jàng bu musique jotee ñu forcer moom ma musique c'est ça. tey jii nii Baye Mass yaa ngi waajal ay duo avec des artistes ou bien. yu na ko gaay xaar ñoo ngi waajal ay duo donte mënaguñ wax kan ak kan ak kan mën naa ne ñoo ngi waajal fit yu bëree bari mais doo ñu si ñamal rek ñu xam jox ñu benn avant goût. mënaguñ mënaguñ wax tur franchement mënaguñ wax turu benn artiste parce que bon doo xam mënagoo mën mënoo wax artiste bi fekk duo bee mooy njëkk génn wala ak yeneen ak yeneen te man pour dire vrai juste dañ mën naan woyal. man loolu laa am woyal ñëwal ñu dem fii ñëwal fii nga war a dem tey lii nga war a def man loolu laa ci am li li war a génn sax mun nañ toog ba jour bi mu war a génn laa ko yëg. nga may ñu rek benn son yi xam nga ñu xaw a détendre ma laaj ma jox la fa bëgg dem ma baby li ne ci yow mu ne ci man bëgg naa la xale bi lee man yow laa bëgg nga doon sa yaay doo man li may laaj. yaa ma ko mën a jox tu te vois au fond de moi ci man ci man je dama jékki rek ne bëgg naa la ne ci yow yi doon na benn benn yow laa bëgg doon sama yaay doon yow laa bëgg doon sama jongoma yow laa bëgg nga doon sama yaay doom yow laa bëgg nga daagu sama biir kër. Ah, Baye Mass mel nii foo ko laal mu wuyu la parce que fi mu ne nii ci waxi mbëggeel lay wax noonu <laughs> way bii nii nga ñu may léegi nii a cappella euh, si sa album yi si sa album bi ngay prévoir la bokk wala. non yow laa bëgg génn na mais dañ ko génnee version euh, MP3 single la génn. Euh, génn bi nag juste après Balma bi ñu defee video vidéo ma bi lañ ko génnee donc par la suite amul ñu bari ñu ci jot noonu mais génn na yow laa bëgg la tudd quoi. mun nañ xam yow si milieu musical moo xam au niveau international ou bien au niveau national yow kan mooy sa idole. ki nga xam ne moom laa moom laa moom laa gën a bëgg ci ci Sénégal fii national pour ñu ñëw ci ba pare nekkatu fi muy sama maam muy Ndiaga Mbaye moom laa ëpp lu may déglu ba tey moom laa ëpp lu may déglu ci musique bu weesoo moom yaakaar naa Youssou Ndour la boo génnee domaine bii nag R la laa ëpp lu may déglu ci ci domaine international. sa style musical euh, da nga koy varier ou bien. dama ko dama ko varier bu baax a baax a baax aussi euh, pas dama ko varier pour mën a def lépp lépp lépp lépp wala pour def lépp mais boo nekkee ci domaine da nga ciy da ciy gëstu da nga ciy déglu ñi nga xam ne ñoo ñoo ci am xam-xam ñi nga xam ne bokk ñoom la ci nit ñi gën a ràññee te loolu noonu daf lay yokk xam-xam parce que musique moom. loo ci loo ci xam doyul donc lépp lépp li nga ci war a am mooy li nga xam ne moom la Socrate di wax tout sa que je sais c'est que je ne sais rien nga fexe recueillir le maximum de de connaissances comme ça ak foo ñu mën toll rek yow doo doo chuté waat te di nga mën a gën a émerger. ñu ngi nii di dem si euh, fin wu émission bi. Mm-hmm. ñu buggoon xam tey yow euh, say morom yi nga xamante ne ay jeunes lañ di évoluer ci même millier bi nga xam ni ci nga nekk. ban conseil nga leen di jox. mooy ñu ñu ñu am patience. parce que musique dafa laaj patience dafa laaj patience bu bu baax a baax a baax yenn saa da bëgg def dara doo ko mën wala yenn saa nga bëgg dem fenn doo am noo fa demee pour pour pour way kese donc ñu am patience aussi ñu xam ne musique du du d'abord dama ne dama ne naa ko mën rek naa ko def non musique dafay doon loo xam ne da nga ko bëgg ba pare boo ko buggee après nga nga xool est-ce que nag man li may def mun naa ko boo mënul nag vaut mieux vaut mieux nga bàyyi parce que yaakaar naa loo bëggul mënoo doo ci dem donc nañ am patience aussi ñu xam ne musique moom kenn moomu ko papa kenn moomu ko maamu kenn moomu ko kenn ku ci nekk mën nga ci lekk li nga xam ne mooy sa warsëg aussi li li si gën a am importance mooy ñu bañ a def musique pour xaalis parce que musique boo ci def boo koy def pour xaalis di nga ci am xaalis quoi mais est-ce que est-ce que di nga ci am réputation bu baax est-ce que ci am carrière bu baax te loolu noonu moo ëpp solo li nga xam ne mooy mooy xaalis bi à part la musique yow euh, est-ce que am nga beneen domaine boo xamante ni bëgg nga ci exceller wu. jàng bi may nekk nekk na nekk na lu ma bëgg moo waral ma koy def ba tey nekk na aussi loo xam ne telewu ma ci donc maa ngi ci ñaar yëpp te incha allah benn bu ci nekk dinaa ci dinaa ci dinaa ci mel ni étoile. on peut s'attendre à avoir benn Baye Mass boo xamante ne ni dans le futur bon qui sait yàlla moo xam président de la république. président la président man de man de man de dama tiit sax président non Baye nag Baye Mass Baye man moom franchement bëgguma nekk bëgguma nekk euh, je suis apolitique man waa affaire de politique moom du du sama domaine franchement nekkul nekkul lu ma bëgg daal nekkul lu ma neex aussi nekkul lu may suivre beneen maa ngi maa ngi xalaat nag ci côté études ma ma réussir ci beneen domaine mais bu dul bu dul politique franchement. cover lañ bëgg yaay xool ku la neex nga defal ñu benn cover. laataa ñuy tëj émission bi. Oh, pourquoi pas pourquoi pas suñu suñu suñu suñu mag Pape Diouf dafa dem ba naan leen xam ne liggéey booba du yoon du yoon dafa dem ba jëli leen xam ne liggéey booba yoruloo waaw ca la delluwaat ba këram ba mu leer ca dellu siiwul nay leer Sadio dem na rafet njortu weesuwul nga deflu lu bon te foog ne lu baax la bàyyi loolu dafa dem ba jëli leen xam ne liggéey booba yoru loo waaw ma ma maay ma ma maay mar la woon bu dëkk fu sore sore teel a ñàkk yaay teel a ñàkk yaay ñàkk dafa bëgg daan dooleem waaye Sadio fa mu ne baaxul wileeleyi Sadio Voilà, c'est sur ces notes que l'on va clore votre émission Accordéon. Di leen jox rendez-vous ci beneen numéro ak beneen découverte